asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi na ngeen ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara bàyyi nag ci jàmm alhamdulilah euh, di la fàttali ne yaa ngi sa dara Daraman mobile ngeen fi amee seen astuce yu am solo euh, di la ñaan nag yow mi nga xam ne abone goo nga bës euh, bouton s'abonner bi mooy fii abonné yomb na quoi foo bësee fii rek di nga abonné bu ko defee nga bokk ci chaîne bi vidéo boo seetaan nag boo gisee ni neex na la nga bës jàmm bi nii. après nga partagé ko ci réseaux sociaux yi mooy fii nii bëri na ay réseaux sociaux fépp foo xam ne am nga fa ay collègues yoo bëgg ñu jëriñu ci rek nga partagé ko fa. kon tey dañoo bëgg a ñëw ci benn vidéo bu am solo bu ñu doon wax euh, fan yi nii nañ ko indi mooy euh, euh, maanaam faux miracle lañ ko war a tuddee foo miracle lañ ko mën a tuddee quoi faux miracle nga xam ne dangay def loo xam ni dañuy yaakaar nii Euh, miracle la nekkee faux miracle la dañuy inverser image bi image bi dafa inverser wu daal loolu la donc vidéo bi ci la ñuy ñëw tey vidéo bi suñ ci dee dikk dañuy ñëw ci application bii nii euh, ci application bii ci la ñuy ñëw muy reverse reverse ji nii reverse yi ci la ñëw suñ bëggee am reverse dañuy ñëw dañ koy xool et nous allons à la boutique euh, de l'internet la boutique de l'internet ki s'appelle euh, Play Store la boutique de l'internet voilà bu ñu fi dikkee dañuy bind reverse la ñu bind boo bindee reverse nga def euh, recherche bi boo defee recherche bon am nga fi yu bari mais bee nga am dikkagul quoi léegi bii suñ ko bëggee am dañuy dañu kii dañuy waaw mooy bii mooy bii nii mooy bii léegi reverse ji reverse film bii moom lañuy ñu boo cliquer mu génnee la ouvrir xam nga man téléchargé naa ko ba pare mais boo ko téléchargé wul daf lay wax téléchargé mais fii nii ouvrir nga ouvrir ko nii boo ouvriree mu diriger la directement ci application bi boo dikkee ci application bi. bon mën nañu lépp voilà application mi ngi nii léegi application bi bi lii euh, soo bëggee defar benn vidéo boo xam ne si eh, da nga ko inversé maanaam dafay mel ni miracle d'abord da ngay njëkk eh, da njëkk def benn vidéo simple boo xam ne si bon vidéo bi dara sikku ci boo xam ne vidéo simple la normal boo amee vidéo normal bi boo dikkee fii par exemple xaaral xaaral ma woon la euh, si suñu vidéo normal yi ñu amoon sànq yi ñu amoon léegi vidéo bi ma def doon ko wone bii mooy bu normal bi gis nga xam nga dama njëkk euh, boxoñ tàllal ko waaw bii la bii la bii mooy bu normal bi léegi su ma defee noonu tàllal ko daal koy wàcc voilà léegi nag waaw gis nga geste bi ma def nii muy mel ni dama woo affaire bi léegi xoolal nag euh, nañ xoole vidéo bi ma liggéey ba pare mooy bii bii nii bii bii xoolal bii léegi loo gis maanaam fi image bi mujjee li li mujj ci image bi mooy njëkk li njëkk ci image bi mooy mujj gis nga kon xam nga ni voilà très bien léegi nag eh, ba mën nañ dem ci application bi xool luñ ko fay liggéeyee léegi bu ñëwee ci application bi eh, fii fii nii fii lu mu def <coughs> démarrer inversé démarrer inversé ji nii fi ngay bës boo fi tegee sa loxo dafa lay génneel fii choisir un film wala nga filmer direct maanaam nga def caméra direct fii nii wala nga choisir fii benn film léegi nii laa def ma choisir benn film euh, ma choisir benn film boo choisir benn film xam nga bi bi moom moom lañ seetaan sànq nii nga gis may boxam nga xam ni gis nga ma ma boxam daal di sànni kaas bi léegi boobu lañ seetaan noonu léegi nag boo dikkee ba fii nag lii la lay génne lii léegi image baa nga ne le su la génnee la loolu fii ngay bës fii ci digg bi soo bësee ci digg bi nii mu génnee la tableau bi bu la génnee la tableau bi euh, ci flèche bi flèche bi ci ngay bés boo tegee sa loxo ci flèche bi eh, mu génneel la lii nag léegi tàmbalee dox boo tàmbali koo liggéey léegi liggéey na ko ba pare gis nga nii voilà gis nga xam nga li ma mujjee moom la njëkkee quoi moo gis nga léegi instant bi nii nii la quoi bépp image boo amatee rek boo xam ne sii da ko bëgg a mën nañ fermer fii publicité la boo xam ne da nga ko bëgg a boo xam ne da nga ko bëgg a inversé da ngay filmer ba pare boo filmer ba am film normal boo ko dugalee ci application bi day li image bi njëkkee moom lay mujje li mujje moom lay njëkkee nga xam si kon tey boo sànni woon xaalis boo ko filmé xaalis bi nga sànni day mel ni xaalis bi dafa nekk fële fu sore ngay woo xaalis bi muy ñëw euh, affaire boobu la quoi kon loolu moo nekkoon vidéo tey bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp ci topp gi ngeen ko doon topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa